amee internet Feeling Dakar salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax leen ziar di leen wax dal leen ak jàmm ci seen actu people ñu koy door rek lu ñeel wàllum Covid 19 bi sur 300 euh, 3221 euh, tests réalisés 433 euh, sont revenus positifs 36 cas contacts aucun cas importé 397 cas communautaires 538 patients guéris 70 cas graves et 13 décès ba tey ñu desane ci wàllum Covid 19 bi ki ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr moom nag daal di nañu xamal ni eh, li nga xamante ne moo di troisième vague bi léegi mu daal di jeex waaye daal di nay wax ni ngir loolee lépp am faaw ñu respecté mesures barrières yi te daal di dem eh, ñàkku ji eh, ca hôpital waaye it daal di nañuy xamal ni li lu toll ci un million de personnes daal di nañuy daal di nañuy ñàkku fii ci suñu réew mi. ñu ñëw ci wàllum sport ki nga xamante ni nag moom moo di maître El moom nag euh, daal di nay euh, daal di nay euh, tirer sur le coach de des de des Lions du Sénégal muy Aliou Cissé moom avocat boobu nag da nee na ki nga xamante ni nag moom moo di Aliou Cissé entraîneur bu baax la waaye nekkul professeur en matière de coaching comme les autres entraîneurs comme Zidane et cetera lépp nag mu ngi ko daal di tekk ci kaw ki nga xamante ni nag moom moo di Augustin Senghor nee na ku jik njàgg rek moom mooy njàgg nee échec bi nga xamante ne Aliou Cissé am na ko fii Euh, moom moom moom mais la moom mi nga xamante ni nag moom moo di Augustin Senghor si on avait une bonne fédération on aurait éliminé euh, Aliou Cissé depuis longtemps waaye nag nee na malheureusement ki nga xamante ni nag moo di Augustin Senghor amul ambition ci Sénégal ngir indi ñu li nga xamante ni nag moo di coupe bi ba tey ñu des ci wàllum sport ci suñu làmb ki nga xamante ni nag moom moo di Bombardier ak Balla ginnaaw bi ñu reporté li nga xamante ni nag moo di seen combat li ko waraloon nag mooy euh, ci Covid 19 bi ñoom nag kenn ku ci nekk rek daal di nay dem reprendre li nga xamante ni nag moo di ay activité ku ci mel ni Balla Gaye numéro 2 moom nag day daal di dellu fi nga xamante ni moo di France ngir reprendre ay entraînement ki nga xamante ni nag moom moo di Bombardier moom tamit daa daal di dellu fi nga xamante ni nag moom moo di États-Unis ngir ngir amal li nga xamante ne mooy troisième combat am dans les mêmes ñu ñëw euh, ci ñi nga xamante ni nag ñoo nekk askanu Tivaouane Peul ñoom nag euh, insécurité bi am ci VDN bi lool la ñuy jooy ñoom nag nee nañ ginnaaw liggéey bu rafet bi nga xamante ni gendarmerie ak euh, police bi ñu ngi koy def ci ci VDN bi waaye rek la fa manqué rek moom moo di wàllum éclairage maanaam nee nañ seen suufu VDN bi ci pont yi dafa daal di lëndëm ba dafay jur li nga xamante ni nag moo di ay coin yu nga xamante ni agresseurs yi dañ fay toog di démb ci ngoon ay agresseur daal di yéeg ci ay dëru daal di agressé ñi nga xamante ni ñoo nekkoon foofu ñu doon jàll foofu di agressé tamit ñi nga xamante ni ñoo nekkoon euh, ci ci biir oto yi ñu ñëw ci xew-xew yi fi amoon ki démb mariage bi nga xamante ni nag doon nañu ko célébré ki nga xamante ni nag moom moo di Diamy Gueye nekk danseuse nekk présentatrice nekk actrice ci yenn série yi moom nag dal di nay daal di nay marié wu ak ki nga xamante ni moo di Medoune ñu gën ko xam euh, ci jëndee caméraman yi mu nekk caméraman fële ca TFM moom Diamy Gueye nag ñu gën ko xam euh, ci. ci ci fecc mi waaye nag moom Jamy Gueye moomu nag daal di nay prouver nit ñi que ni moom ginnaaw danse actrice yeeg yooyu noonu yooyu yëpp lépp li nga xamante ni rek activité bu muy def la sëy ci la bokk. moom loolee nag lépp tax na ñu daal di koy euh, seedeel ni Jamy Gueye bokk na ci actrice yi nga xamante ni kenn du leen dégg wala bokk na ci danseuse yi nga xamante ni kenn du leen dégg ci benn ñaawteef ki nga xamante ni nag moom moo di Médoune nekk boroom këram moom it di def liggéey bu am am solo fële ca te pusal leen ma pistoor mi ci mbaaw mari mat leen càmm ci kàddu gi ci dem may sama faali njóogu sama maam ji njóogu dëgg la dëgg la mbéy géey la sa baay tudd mhm. mbéy géey la baayam tudd mbéy géey mataar la baayam tudd mataar may sa daaf may sa daaf ma faali njóogu ma faali njóogu lat njuga lat njuga daaw njuga sànqaay girige ali ko ma dee dara dem yaay di sa baay borom yaay bu baax ngóonee sa yaay mhm. waaye Ami Jaway sa ñu ñëw ci ki nga xamante ne nag moo di artiste bu mag bi di Aïda Samb moom tamit nag elle s'est mariée moom euh, niki démb ak benn Gambien moom Aïda Samb nag ci biir mariage bi daal dinañ fay gis euh, ñu ci mel ni ay ñu mbay ji fay maman Aïssa moom maman Aïssa moom nag daal dinañ koy dékk micro mu daal di wax ki nga xamante ni moo di Aïda Samb ginnaaw bàjjanam bi mu doon ku baax la waaye ci ku am am jabar moom ay Aïda Samb moomee nag ginnaaw bi mu doonee troisième dame moom nee na ñëwul pour wujje waaye dafay ñëw topp ci li nga xamante seen ginnaaw ginnaaw ñi nga xamante ni ñoo di ay magam ñu seetaan vidéo bi. mouchoir mouchoir. waaw oh. mouchoir. oh oh. oh. Eh. rek déedéet su ko su ko def laal bàyyi bàyyi mu waat. Matar Diop Subatel manager Pape Diouf Sidi Diop Matar Diop ñu gën ko xam ci producteur bu mag boobu moom tamit nag ma yeewu na ni ki démb moom tamit ñu daal di teewlu vidéo yi. mais heureux ménage mon ami. waaw mon na sëy barke la ah. yàlla boo rëcculoo ci duggee ci barke Seexul Xadim ah jaajëf mon frère. baax du ñu dégg ci réew mi nit nag di nga liggéey loo xam ne da nga jàpp ne sa bopp nga koy liggéeyal fekk du pour yow sa dooma yow man leer na ma ne li nga sonn ci ay doomi aadama leer na ma ne li nga daj ci ay doomi aadama leer na ma ne li defar ci ay banni aadama matar billaahi wallaahi wataalaahi yàlla sa doom la koy fay du looy gis yow ci sa dund yow da ngay liggéey waaye sa doomay fayee yow da ngay liggéey daf ci am ñoo xam ne ci seen dund liggéey la amee internet Feeling Dakar li moo nekkoon li nga xamante ni nag moo fi wàcc ci actu bi ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon fii ci Feeling Dakar. bakk leen ki firaw ubna lam bi soda Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass dofu maam xalifa Niass la solution le mythe de sa génération le marabout inégal muy marabout bi nga xam ne moo ñëw gis saafara leen booleem xeetu jafe-jafe bu ngeen amee di yëngu ci wàllu boole ay nit maanaam taqale ay nit ba ñu jaxasoo nekk benn doon lem ak suukar ba mu gën a neex yow mu bëgg ay papier yu gaaw te leer seet si Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass dofu maam Khalifa Niass yow mi amee tawat faiblesse sexuelle ab jàpp la wala sax nga amee koo xam ne xelam neexul ba ñu koy yeew boo ko indee ca moom moo ca ay yow mi nga xam ne dangaa bënn la ci sa loxo bu loo téye mu daal di dem yow mi say buntu tëju nga bëgg xëccoo wala sax nga bëgg ubbeeku bayre bu gaaw yow mi nga xam ne itam bëgg nga ubbeeku am nañu fa lekkat goo xam ne leket bu gaaw la ci ubbi ay buntu am nañu ay jaaro mystique yoo xam ne jaaro la yuy yëngu ci daf ak jalb maanaam xëccal la lépp loo bëgg dàqal la ragal yow mi Niass dofu maam Khalifa Niass ca Kaolack Léona Niassène këram jàkkaarloo kër xalif général Léona Niassène bu dee ci Dakar Guédiawaye amoo kaat ci wetu kër Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass dofu maam Khalifa Niass ku neex a jot la tappel gaaw 78 362 44 44 wala nga def 75 644 77 77 ak Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass la solution daw leen gaaw bu leen fa kenn jiitu.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 Dakar, notre plateforme d'information.